discussion constante est la suivante. un il faut position si dialogue bi dafa nekk lu constant ñun waa coalition Kama dañoo jàpp ni dañoo wara a libérer sans condition ñi nekk ci kaso yi te ñu jàppoon leen ci ay manifestations. teg ci jàpp yi ñuy jàpp nit ñi ñu bàyyi ko bi ci tegu mooy dañoo war a évaluer pour xam lan moo nekk ci ginnaaw bi ci mujj mooy ñu baalante loolu la sénégalais yi bëgg te loolu la Sénégal war a def ngir mën a nekk ci jàmm. condition boobu dañ ko war a régler balaa ñuy taxawal ay projets de développement apaisé condition première pour la réalisation de tout projet de développement économique et social comme le nôtre